dans une dans une dans une commune wala dans un département soo ne kan moo fi nekkal APR dix personnes yëkkati seen loxo te ñoom ñëpp amul ci kenn koo xam ne du point de vue hiérarchique kii nga mën a ne kii moom moo fi jiir te ñun dafa leer kon yow da nga bu wax ni. non parti APR. débat moo pëcc xoola amul yaa ko wax. ah déet li ma mën a wax li nga wax laa lay kii de. non li ma mën a wax non li nga expliqué. non par rapport ak ñun fonctionnement. Ah. ñun li ñu namm mooy di am interlocuteur ñu xam ne kii la war a waxal. au niveau de l'APR c'est difficile nga am ko. ndax dañoo bëri ay responsable du fépp nag parce que dañu bëri ay responsable mais am na foo xam ne mën nga toog le débat mën a poser parce que xam ne ñun suñu ñëwee dañuy am difficulté pour mën a adressé wu kii bàyyi kële donc ñun on préfère ñu ñu toog ba xam ñoom ñu organiser wu ba pare su ko defee des fois da ngay ñëw toog ak ñoom mais waxtaan bi du am bopp du am tànk nga xam ni fii waxtaan bi du jur dara su fekkee ne mënta jur dara te peut-être euh, xëy na la raison euh, peut-être euh, kenn doxalul raison mm. da nga xam ne fii bennoo bii mënuñ ci jëlee lu bari. Mm. solution yi mooy lan mooy yow nga mën a demal sa bopp mais li nga wax ni dafa mel ni pratiquement fépp ci commune moom la ñuy dund du ma ne gis nañ ku la mu yuuxu woon jàpp nga ni il a raison de dire que ni euh, gars ñu ngi bëgg a tibb tànkam pour reprendre l'expression de l'autre mais, mais, mais c'est normal bon pour le cas de Kaffrine oui. Abdoulaye Wilane il faut comprendre que Abdoulaye Wilane c'est un maire sortant un maire socialiste sortant mm. moom li muy wax nee dans l'esprit de Benno c'est normal que moom moo nekk le maire sortant dañu war a ñëw Benno dafa war a ñëw appuyer ko pour mu jëlaat la mairie hmm. en tout cas pas le hmm. bon ça c'est son point de vue man li ma gëm li ma gëm mooy dans tous les cas le jeu démocratique doit prévaloir nañu nañu nañu nañu gëm ne euh, Benno dañu war a waxtaan su fekkee ne am na possibilité ñu d'accord Ablaye Wilane su waxtaan ak ñoom war a waxtaan ñu jàpp ne moom moo war a jiitu moom war a rempiler mais c'est tant mieux mais da ngeen nar sonn ci loolu bu dee yéen da ngeen di xaar may ma daane may ma daane rek may ma daane li ma bëgg a wax foofu mooy su boobaa nous nous nous applaudirons parce que loolu lañ namm que moom mu remplir mais li mu bëgg a wax mooy il faudrait pas que su prétexte que ñu jàpp ne euh, fu un maire socialiste nekkoon danga koy bàyyi de fait mu dem hmm. et que fu un maire APR nekk dañ koy bàyyi mu mu continuer hmm. que ne bon mais su boobaa enjeu du amati. Hmm. parce que y a des jeunes. est-ce que impression boobu ngeen am y a des non maires sortants yoo xamante ne dañu gëm ne bëgg nañ conquérir de nouvelles mairies. Hmm. te ñooñ il faut qu'ils aient la possibilité de le faire hmm. et ce sera à travers un jeu démocratique. il faut que waxtaan am je suis d'accord dans Benno. mais nañu ne su fekkee ne dem nañ ba d'accord ba mën a juboo ñu ànd ak Benno avec une seule liste su fekkee ne nag waxtaan mënu fa am. wala mënuñu déggoo. nañu permettre ku nekk mën a demal boppam. loolu kan moo non ça kuy décider loolu non ñun. kan ngeen ciy déglu no ñun loolu la ñu demandé au parti parce que ñun du ñu jël suñuy nen yëpp. def ko ñun yeneen yan parce que maa ngi koy wax sànq. non je veux dire le parti social xam nga man j'étais dama la wax waxu. parce que on ne sent pas votre leader. commission dama la ne commission électorale du comité central. mooy l'instance habilitée pour mën a discuter ci nan la ñu demee ci élection yi. xam nga euh, commission électorale boobu li mu jàppoon mooy PS dafa war a déposer une caution.